ah moo taxawoon moo taxawoon wax fi wax ju ñaaw taxawaat ne moo tooñ kon lépp lu mu waxoon ci wax ju ñaaw jooju nañ ko jël këpp ko ko rek xam ne ci moom la nekk nekkul ci ki mu ko doon wax loolu kese du leneen parce que it am na ñoo xam ne ku leen tooñ reñ ba déwén mu jig la ah, ma xam ne wallahi ma xam ne kon loolu loolu loolu c'est comme nag moom moo ba jégalu nañ ko jégal rek ndax yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam daan jekku di jégale mm-hmm. te mooy suñu mooy suñu royuwaay mooy suñu référence mm-hmm. euh, li li Baye Mbaye daan wax rek man moom laa mas a di wax mooy nit du la tooñ nga man koo nga man koo faj léegi faj ko léegi kookaa sax bu boobaa yàlla daf lay bàyyeeg moom te bu la yàlla bàyyeeg moom rek dafay ëpp dafay dafay xaw mujj loo xam ne day nekk ñeeñ mm-hmm. comme moom moom lañ tooñ moom moom moom sama waajur boobu Baye mbay nee na jéggale na jëlale na mm-hmm. moom it moom mi tooñoon it na fexe ba bu mu delluwaat ci lu mel noonu rek mm-hmm. parce que it maanaam dañoo neextu mi moon lu bari parce que fañ lay jéggaloo fa waxaatee lu mel noonu benn lay doon ñu bëri dañu yaakaar ni sax ki nga xam ne ne moom mooy kilifa bi mu tooñ muy Baye Mbaye MC ñu bëri dañuy jàpp ne axam moo ko dal tey ba ki nga xam ne ne moom mooy doomam moom mooy démb li laax nga xam ne ne kenn fekkee moom tooñul tooñ parce que booba ne jël wax ju ñaaw teg ko ci deru Baye Mbaye MC lu yem ni non c'est pas vrai lu yem ni Mawlana Cheikh Ibrahim maanaam am am am njabootam nga ne ko diw juru la loolu loolu loolu njabootu El Hadj Abdoulaye Niass rek nga ko mën a def ñu jégg la te yàlla tax nii ñemewu laal ñeneen di feneen kër diine yi fii nii te te te France kër ñemewul ñemewut a nekk ñemewu wax jël wax ju ñaaw ju teg ko ci deru beneen kër kilifa diine fii wallahi al azim te fanaani te fanaani woo bàmmeel mënul nekk jamais de la vie kon bu fekkee comparaison la aussi tamit bu fekkee euh, euh, fair play la su fekkee aussi tamit respecté injustice du Sénégal euh, astafurlah respecté institution du Sénégal la xaw ma bu fekkee respecté justice du Sénégal la kenn gënu koo def njaboot Alaaji Abdoulaye Niass parce que chaque jour ñu ruux leen baaraam ci wax yu ñaaw yoo xam ne nii mais tërëw dañ naan tekk na tey bàyyee leen ak yàlla yàlla fajal boppam loolu mooy sëriñ sëriñ du xeex xeexu loxo maanaam dem di dóoranteeg yu mel noonu sëriñ am na leneen lu mën a xeexee lu dul ne di dóoranteeka di saagawante ku la saaga kalaame ko sa borom moom mi faj sax la yëpp balaa ren di déwén gis ko comme moom moo waxoon wax ju ñaaw taxawaat ne moom moo tooñoon kon nañ jël wax jëpp képp ko képp ko ko rek moom MC nag moom yàllaa ko setal ku yàlla setal nag moom nii rek lay demee kon képp ku gëmoon wax jam waxoon moom taxawaat ne wala lépp lu mu waxoon dëgg moo tooñ kon nañ jàpp ne MC kon moom tooñul kenn dañ koo tooñul taxaw na jéggalu mais am na loo xam ne maanaam c'est undal yabaate la parce que ku mel ne doomu Mawlana Cheikh Ibrahim dëkk kër Mawlana Cheikh Ibrahim Baye Niass moom rek moo dëkk ci kër Mawlana Cheikh Ibrahim ci doomu Baye Niass yëpp moom MC waaw ku am loolu nga mën a taxaw tey di jël ay wax yu ñaaw di ko xas kooku mën a taxaw calmer ay taalibeem ne bu ko kenn dóor ko kenn laal bàyyi leen ko balaa ren di déwén ba xam Maolana Cheikh Ibrahima dana ko dana ko faj wala du ko faj bu ko fajee ma xam ne mooma jur bu ko fajul ma xam ne li mu wax dëgg la kon alhamdulilah ay jafe rek ci la nekk yaayam feebar na yéene wuñ ko ko woon ci diggante bi ñu gis fi coow yi lu ne doomam tey mi ngi tontan tey moom moom rek ci politicien boo xam ne da ngay taxaw wax léegi sa doom sa doom tontu la léegi ak yeneen yuñ mënta wax koo xam ne état bi ngay taxaw di kaasal ñu ci bëri reconnaître tuñ la koo ci appel du la jël koo ci message du la jël yooyu daf la war a yee ci àdduna nga teel a xam bu baax a baax a baax fi ngay teg sa tànk teel a xam bu baax a baax yow yaay kan ak lan ngay posé ci réew mi parce que booy xeex da ngay xeex ci dëgg mais bul xeex ngir perso données personnelles ak benn nit mais mooy lan mooy jàpp dëru jàmbur ñi di saaga di wax lu ñaaw loolu nañ ko arrêté ci réew mi bi ci des maa ngi wax justice du Sénégal ne leen yii ñuy caaxaanee dana taali réew mi ëllëg te ci ñoom lay jógee tey képp koo xam ne taxaw na saaga président la république Macky Sall du fanaan këram koo a doon doo fanaan sa kër waa kon ko tey ku taxaw saaga ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko taxaw saaga Cheikh Tidiane Niass mii ci saaga boo xam ne tuumaal ko ci wax joo xam ne teguwul fenn Cheikh Tidiane plainte ko amu bañ ko plainte justice Sénégal dafa war a jël liggéeyam jël ko jël ko yóbbu ko parce que bu dul dara Cheikh am na cinq personnes yu ko gëm topp ko Baye Mbaye MC am na cent personnes yu ko gëm topp ko cent personnes yooyu heure bu ñu fipp woon réew mi tàkk ndax bu boobaa dafay nekk diggante xeet ak xeet diggante sëriñ ak i taalibeem kon nañu moytu yooyu noonu ñu defaraat réew mi xam ne réew mi ñoo ko moom président Macky Sall Abdou Diouf ba ci Senghor amul kenn ku ci moom réew mi ndénkaane la dañ leen koo dénk heure bu seen i mandat jeexee yàlla jeexal ko dañuy dem keneen ñëw